mi mooy ba Sock loolee daal ñàkk la nit ku nga xam ne ci wàllum syndicalisme daanaka ku fës la woon ci moom Mademba Sock mooy incarnation syndicalisme bi nga xam ne sax mooy moom fa sa bopp waaye tamit fexe ba lii nga xam ne daal mooy liggéey bi nga xam ne moom la askanu liggéey ku ci nekk mën cee gis boppam loolee mi ngi ko daal di suuxat ci li nga xam ne mooy nguuru socialiste yi ba ci premier alternance ci atum 2000 la ay grève sectorielle ci wàllum courant bi ci wàllum njàng meeg njàngale mi ci wàllum wér-gu-yaram ay victoire yoo xam ne day toftalu ci liggéeykat yi nga xam ne ñoom tax na kat Mademba Sock ko nekk daal koo xam ne seen jafe moom la ñuy woo ngir mën koo saafara syndicaliste autonome ci wàllum enseignement ci Sénégal waa SAES jaare SUTELEC ak secteur bi nga xam ne mooy wàllum yor-giram ci wàllum administration publique lu bëree bëri daal loxoom dugg na ca ngir rek xeex ba nga xam ne moom lay xeex loolee mën a am njariñ waaye tam ci wàllum courage am ñàmbaarteem ci détermination gëm boppam gëm la mu ne tey jii mu doon la mu doon moom ma dem Mademba Sock moo daal di marqué dunduk syndical bi ak ci wàllum politique nekk patriote pire ci wàllum syndical journalisme ak ci wàllum entreprise moom ba Sock dafa amoon style bu nga xam kat moo ko moomal boppam discours bi nga xam ne kat lu bëree bëri jot na ko cee soppi moom ci boppam fexe ne ba yëngal wàllum syndicalisme nii ak la nga xam ne kat mooy mbébétam moom Mademba Sock daal di dugal loxoom ci nga xam ne mooy participation ci liggéeykat yi ci wàllum xeex ci fexe daal ba gouvernance institutionnelle ku ci nekk mën cee gis sa boppam rawatina société publique yi nga xam ne mooy IPRES FNR ak ñu mel ni ñoom moom dundam yëpp ci wàllum syndicalisme la mu am ci solo lool ak ndono lu nga xam ne bàyyi na ko ñii di ñëw ak ñi ñëwagul ñu di ko jaale famille am ay jegeñaalim liggéeykatim ak ñi nga xam ne ñooy wàllum syndicalisme nii ak ci askanu Sénégal la ñu koy ñaanal suuf woyof ci kawam.